la la quatorze août mu mel ni une semaine lay dox diggante bi. day daan ñëw yóbbu ma làmb ja ma daan. day daan ñëw. yóbbu ma làmb ja ma daan. Gora Sock ngay daan yow. incha allah si kàttanu yàlla si bu ñëwee ci làmb ji. luy ñëwee ci làmb bu ñëwee. ak ah, Gora dina bëre si. loolu laa koy ñaanal mu ñëw bëre jàmm ma daan ko. yow da ngaa jàpp ni Gora da laa ragal wala. Gora ñemewu ma. Gora maa xam ne ñeme góor bu ñeme woon rek guérison bi ba mu génnee ba léegi mënu fexe bu yóbbu ko. yow foo xamee information ne bi daa génn. guérison bi génn plus de un mois. moom fexe ba yóbbu ko dégg naa barki démb la ko yóbbu. ku la wax loolu. non dañ ma ko wax man dama am ay nit CNG. yaa ngi tuumal ay ay waa CNG. non dama am ay nit CNG sama manager te foofu la nekk. Hmm. ah réeroo ñu si dara man ak moom. mais lan lan nga yaakaar ne moo war a tax rek guérison bi génn pendant un mois mu téye ko yóbbu. moom xam naa xelama dalagul rek dégg naa père ba sax moo si mujjee jàpp pour ñu yóbbu ko dégg naa père ba moo si mujjee jàpp sax gars yi wax nañ ba sonn. mu naan xaar leen xaar leen léegi naa père boobu mos muy jàpp gars yi yóbbu yóbbu guérison bi. kon da nga jàpp ne dañ koo forcer mu yóbbu ko. dañ koo forcer kañ dañ koo forcer de. mais mbër mu toll ni góor soog ngay wax ne dañ koy forcer mu bëri ak yow. ah mais tamit li muy li muy ragal moo ko xam fi laa tàngaree Baba Ngar. waaw hmm. metti de fi dara yomb fi. côté góor gi yaakaar naa tàng na fi. damaa la déggoo li ma la xanaa fii la gën a buujoo fii. Hmm. góor moo xam li muy daw. non daa bëggul daanu si année bi mais dina ci daanu moom. 100 pour cent parcelle bi yëngu na de waaw <laughs> ah, moo gën 100 pour cent 100 pour cent parcelle ñun yéemuñu ndax parcelle ñoom yabuñu ñoom. parcelle ñoom yabu ñu baal ma si kàddu gi sax mais parcelle ñoom bu ñu nekkoon ay jigéen ñoom suñuy jéeg lañ. loolu ñoom suñuy jéeg lañ. waaw loolu loo xam ne ñoom ñëw yabuñu ñu. non loolu jéeglu lool nag. déggu li ma la xanaa ñoom yabuñu ñu sax. non non loolu yow tamit. waaye yow ñëwal nan wax ci làmb ji rek. ñoom yabuñu ñu ci lan leen yabul ci làmb wala. ci lépp ñoom yabuñu. xam nañu da ngeen di daanante rek. xam ñu bu baax ñoom commencé ko seen punkal bi ci kaw. ba ci suuf seen roi des arènes bi. Eh, roi des arènes lamb ji la ah, wala. non non roi waa la ak waa Pikine mais du waa géej waaye de. mais li ngay wax ni yow waxu mbër ngay wax wala waxu lan. déggoo lu ma ñoom parcelle ñoom ñoo am ñu ñu yab mais ñoom ñu yabuñu ñu ñoom. kon combat bi da nga yaakaar ne du. Euh, li ñu defal li ñu defal Franc. laa bëgg ñu defal ko ko ci bis bi yëpp. loolu kay xam nga ne day am Franc moom ni ñu yebee Franc la ñu yebee. loolu laa ko. Hmm. duñ noonu laa bëgg ñu indi ko nag si combat bi. Hmm. waaw bu ñu ñëwee ma toroxal ko seen kanam. de Balla mbaa góor du la bett. bett maa mooy bët di gis daan bett. aywa góor mënu maa bett. parcelle takku nañ ba dëgër de. ñun tamit école Balla Gaye ak Guédiawaye takku nañ ba dëgër ñun. billaay. te góor af keroog ma demee di jël Franc ak Lamine mi fa lañ ko fekk. na ma ko gisee muy liggéey ak lañ koy teg. waaw ah, te Franc na moo koy andi ah, moom na ma xaar moom. moom Franc na ma xaar. moom na ma xaar ci boppam maa ngi ñëw. non xaar ma lijjanti kii rek jublu si moom. Franc Franc moom na ma xaar. bu mu yàqamti dara bu mu yàqamti sax di jël combat. Hmm. na ma xaar rek ma ñëw. loolu laa koy wax na ma toog xaar bu mu yàqamti sax di jël benn combat. kon yow daf laa leer ne kii da koy daan. Ah, lool mooy waxu la. na ñëw na bis ba rek. xanaa moo tax mu a confiance bi ngay dégagé nii foo ko teg mën a bëre la ëpp a ëpp fit la wala ëpp sañ-sañ la. damaa wóolu sama boo nekkee xale sa bopp loolu ma dal rek. wala xam ay faayu góor wala ay. fo dama ko xam nag dama ko maîtriser bu xam ay faayam bu baax. lan mooy faayu góor ma ko wax fii koy fàtte du ma ko wax secret la. Hmm. Euh, bi génne suñu diggante. naa fii laa lay jaar. kon day jamay kee xanaa bisam nar nar naa neex lu ko fekkee. de. ndax bis moom bëgg koy dund